salaamaaleykum chers amis internautes de la Médina TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek mbokk yi kon dañuy ñëw ak ci xibaar bi ñeel Amina Poté Amina Poté nag ngeen gën koo miin kon mu nekkoon a présentatrice euh, ca fa nga xamante ne moom mooy TFM ginnaaw bi rek mu jël rek recul euh, daal di arrière tuuti ngeen gëj koo gis lool ci réseaux sociaux yi kon ñu jotub xibaar euh, buy fësal ne war na dégg alxayri dimanche bi ñu jub si kon moom Amina Poté ginnaaw sëy yi nga xamante ne kon duggoon na ci ba ndog dal ko ci quatrième fois rek suñu borom an mayaat na ko keneen mu war a déggaat kon alxayri waaye rek mbir ya daa ànd a polémique ginnaaw bi ñeen ñi ne rek ndax euh, Amina Poté dafa am bras long ca Aras ndax gis nañu saa bu ci génnee rek balaa yàgg mu déggaat beneen alxayri te am na ñu bëri ñoo xamante ne benn dalee na të waaye am ñoo xam ne rek itam sax yëyuñu guro wala sax gisuñu ku leen jox guro mu nekk kon loo xamante ne def na coow waaye rek mu ñeel mbir rek euh, loolee mbiru yàlla la kon Amina Poté Médina TV yëpp di ko ñaanal sëy boobu mu nar a dugg yàlla na ci am lépp loo xamante ne rek mi ngi koy séentu ci ngëneel te mu doon itam sëyam boo xamante ne rek day doon euh, sëyam a vi mu am jëkkëram a vi su ko defee mbokk yi kon Médina TV moom day wéy di leen toppal xibaar boobu leen loo xamante ne amaat nañ ko ci information ci num gën a yaatoo rek ñu ñëwaat ci ak yéen euh, mu gën a leer waaye rek d'ici là wéy leen di partager di abonné waaye bu leen fàttee like benn yoon ci li nga xamante ne moom mooy Medina TV su ko defee dara du leen rek suñu ay information di si d'ailleurs jaa ngeen jëf